kaay leen ñu nekk benn kaay leen ñu jàppalante kaay leen ñu dund li li nit mën ta am mbokk yi lu dañoo jaar ci suñu borom wax saa bu ko jaara rek bu ñu nekk rek ñu téye gis nga fi ne pour ñu nekk comme miir bi ni mel kenn ku nekk di yëg li morom di yëg li nekk sa morom bi la nekk li bëgg sa morom bëgg nga di ko bëgg ñu nekk benn soo bompa keneen nga yëg ko gis nga loolu bu ñu doon tari xarit yi ci ñëw yëpp fii ba àddina yi tukki du mën a am li di dañoo dellu ci suñu borom sant tey maa ngi tànn koo mbokk muñ muñ te muñ garab ak muñ ci la muñalante bànqaasu mu nekk muñalante nekk képp li ma def mbokk yi dafa mel ni ñun muñ moom daa génn ci suñu dund loolu su ma ko waxee mën naa am ñu jaaxle waaye muñ moom génn ci suñu dund léegi misaal bi ma koy joxe moroom bi daal te gaaw su ma dëggee saw daal mu dagg nga ne ma yaa ko tey su ma yàq ci nga ne yaa ko tey da ngaa sot xamoon naa ko kon ñoo ma ca kanam yàlla wax nga li nga bëgg a ko pare dee su bii di tam muy amatu foofu xalaat te kër ñu baat yi lay wax ñun ñëpp a koy dugg yaa ko tey xamoon naa ne fii ngay mujj ba koy lii neewoon naa la lii lépp la sax léeg-léeg ma it mën naa rëcc wax loolu après mu tuub ndax nit ki day góob waaye chaque jour loolu di am day wane ni muñ amul de yaa ko tey waxoon naa la xamuñ ne fii lay muñ xamuñ ne boo ko defee nii ñu def lee ah kon ñoo ba ca kanam yàlla bëgguma lii de wax a wax a wax ba sa xool kenn foofu moom muñ amatul place ko léegi yow boo ko tuddee muñ yëgal ne amoo ci yàlla parce que wax nga la nga bëgg a wax ba noppi doo ko muñ muñalante ba ngoge noonu xam nga ku muñ mën ka am muñalante amut gis ngeen aaya jooju ñu doon jàng sànq borom bi subhanahu wa taala di wax ni dinaa leen nag suñu ci shay min al xawf insécurité wal joo xiif wa naqs min al amwal di la nga nekk nekk sa poche bi gis na loo yor dara boo melee ni man nag da ngay jàmbat rek waxal naa leen ko ay jamono maanaam léegi dina ñu ci dëgg nit ki dañuy kii di def ay ay jàmbat waaye soo pare da ngay jàmbat xatakuwaat maa ngi gis tey ci suba benn xalis boo xam ne yàgg naa gëstu ndax wér naa wér yéen yàlla te wér na yéen yàlla bu ni malaaka mi bind safaan yàlla dina ko may fukki saa juróom-benni heure ngir li nga wax day liggéey ko fii juróom-benni heure yi nag li nga wax boo liggéey ni jur na nga restitué ñu épargne li ñu gëstoo ba tey laa doon gis ne xalis bu fekkee wér la kon kon yooyu mooy fawul ci am waaye bu ko di dëkkee wa bashiri sabirin dëgëral ñu kat ñan mu ne alladina ida asaba musiba pour musiba kàbbee seen kaw musiba bu ko arab waxee léppul dee rek moo tax musiba mooy lépp loo xam ni saxaan la ak lu neex qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu mu ko defee même kaas bu wadee sax loolu ngay wax ñu de ulaayka yi alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma tawfiqi yàlla ko salawaat bu tekki yërmaande ndax rahma bi sot mooy yërmaande salawaat mooy njëggalu yàlla wa rahma ak yërmande ulaayka hum muhtaduun moom ñuy diggee yaa ngi la gën a am yéen ñi gëm yàlla isbiru dina muñ su ngeen ko paree wa saabiru dina mënal su ngeen ko defee wa raabitu ci ngeen di mën a nekk benn su ngeen ci boole wa taqullaa la'allakum tuflihun moo ci tax ci alquran ni dama seede ba da gis buñ bëggee sa bëri léegi dañoo état bi dañu jaar ci escalier dañuy sonn muñ mooy lan xaqsu nafsi an iljaza wal lisaan an iltashakki borom xam-xam yi ne xaqsu nafsi an iljaza da ngaa war a révolté wala nga riposte wala nga wax wala yëpp nga ci wala lisaan lan la ñu am tachak bi jàmbat lépp loo xamante ni dal na ci kaw nit ki mu bàyyi koo te yàlla subhanahu wa taala ko muñ moo ci wax ndax loolu mooy ak sabru an aqdarillahi almu'lima muñ ci dogal yàlla yi nekk yi borom xam-xam yi wax ne am na façon muñ ak sabru ala taatillah wa sabru an maasiyatillah wa sabru ma'a ala rida ilahi a ala aqdar illahi muslima muñ ñetti façon yooyu la ko borom xam-xam yi tënkee am na muñ nag ci yàlla muñ ànd ak yàlla muñ te yàlla tax muñ ànd ak yàlla mooy muñ leen rek baax dama ànd ak loolu muñ te yàlla tax mooy li may def yàlla kese mooy tax ma di ko def muñ ci yàlla mooy li may def man dama koy def ànd ak yàlla yi def li may def waaye damay muñ ci ànd ak yàlla subhanahu wa taala moom ak sabru ma allah benn la yii yëpp léeg-léeg nag ñun bu fekkee musiba ñëw nga dal ci sa kaw boobu ngay xamee muñ kes mbokk yi waa xam ngeen ni muñ dafa am ay daraj yu rëy rëy rëy li ci alquran di wax doy na yàlla mi ngi àndal muñ kes yi innama yowfa sabiruna ajrahum bi xayri xisaab yàlla moom bokk na ci li gën a rëy li mu teye muñ kes yi mooy bi xayri xisaab dugg leen ajr dem leen amul xisaab amul xisaab ah mbokk yi loolu neex na de dafa yéen yàlla bi nee na ku dajeeg pension yàlla ku yàlla fayee muñ kat yi da nga doon mbéy rek delluwaat ci àddina mi dafa jam ay raam am na koo xam ne daa mel ni man benn feebar moo ko dal ak nit yëpp dina xam ne daa feebar foo ko fekk mi ngi wax mi ngi jàmbat tararararara sukk perte la dix perte li wala fanaan perte la buubu pertaale quinze li ak rek lu muy jëriñ xatta ci borom xam-xam am na ñuy wax sax donte loolu nag wérut nga gën sa dëgër nit ki bu demoon ci docteur di wax di wax li ko métti yëpp wala moo ko jël comme laaj ko mën ngir bëgg a xam ne am na ñeen sax loolu ci guddi jàmbat lay dugg fekk déedéet loolu dugg ci bu fekkee docteur da koo laaj wala muy expliqué mbokk mbir boo xam ne pour mu xam la ci jàmbat nit ki ala ku ne xaal la muy wax lam ci yéene rek la ci kon lan moo tax mbokk bi ñu saxaaba yi nga xamante ni dañ doon am ay jafe-jafe ay góom ci dox ak ah immolite ay at bët boo xamante ni yàlla nag koo fakkal ay at ci kenn du mës a dégg nga jàmba ah ah est ce que mbokk yi loolu ñun gën nañ ñu mën nañ koo jug amaan kay mën nañ kaa dund dañ ko doon jéem ñàkk ñàkk gis koo xamante ni tey day xëy lu mu lekk rek la am ñëpp a koy dégg Abu Saïd al-Khudri ne daal ko amul lu mu yekkee amul lu mu amul lu mu leeree soxnaam ni ko dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da tey am na màng mu ko dikkal mi ngi séddale te ngaa dem ci moom Abu Saïd sol ay dàllam ñëw daal mel ni ku yàlla yebal ñëw rek toog dégg yonente bi naan jàmbat baaxut ku yàlla nag da ngay muñ même boo xiitee yàlla xam na sax lay jaar Abu Saïd ni kon kii man lay wax daal di dem te yéen moom ko woon de li mu waroon am soom lay waral ay daal nee na ma xoraat samay daal naan ci gën bi ma soxna si laajee loolu ëndaale man nit ñi ko mu ne ko ah kon loolu mooy waral nañ jàpp ci yàlla nee na damaa toog tuuti rek yéen si yónnee ma taawaal te jitu ko wax sax soxla si ah kon gis nga nit ki dafay sabal mu muñ maanaam li ko li ko gën muñu leen ci bokk yi wala tey nit ki dëgg la duñ lay muñal ci dina yow du nekk lor di tege ci sa kaw sa kaw mbokkum julit julit du nekk lor ci kaw mbokkum julit yéen ci ne yàlla dëpp na ko xam day nekk wéeru ci kaw nit nga xam ne da ngay lor rek déedéet lorante xaw mu am waaye muñalante yi am nit ki day moytoo lor mbokkum julit waaye yooyu niñ lor ba fexe nga muñ ko muñ fexe li ngay def yàlla rek sax bëgg ci ay tiyaaba waaye dafa nekk nag de jigéen ji tey da ngay dégg ñu ne ko muñal ah kii ñu ne ko muñalal ko jàppal ko ngaan defal ko lii dëgg la muñ nag comme ni ko war a waxee wér na am na fu muy yem waaye ñun ndax duñu muñalante dara dara te aay léegi aay yi ñu jàng fu mu féete xarit yi ñuy jàng fan la féete tiyaaba yi ñu digg ci mun fu mu féete benn borom xam-xam day nekk na kista bu am solo mu ne benn buur pour war nañu ni ñu doon dundee alquran benn buur dafa am ay gan mbindaanam di wër di séddale soos bi am bu ni soos bi am bu ni cuuraay bu dee soos bi ñeex ni toq ci kaw sang bi bu dee xal bi daal di taq ci kaw yére sëriñ bi mer lool buur bi mer parce que dafa jàpp ni kii def koo sobal nag daa bàyyi ba ay naw leen teew mu def ko loolu xam nga buur yi moom dama lay rey ni koy gaaw lool mu daal di woo jallaat bi wala sa yar bi kii rey ni ko reyal ma suñ gaaw waa ji ni ko huut maa ngi lay fàttali wal kaazimiina al ghayza yàlla dañu tey maa am jaam yu baax waaye nee na mu ne wal kaazimiina al ghayza mooy ñi nga xam dañuy leer ba fucc waaye wax naa ko ba mu jàll ci biir waa ji daal di sëgg rek sëgg sëgg sëgg mu yàgg mooy moo nga xam naa jaam bi ko dégg ku dégg alxuraan la mu tegal ko ci ni ko maa ngi lay fàttali wal aafiina ani nnaas yàlla ne sëy jaam yi ñoom it neen mu ne ñi nga xam ne ku leen toon ñu baal mu ne ko demal baal naa kon yooyu ab jul dañuy nekk li ma la wax ko ci Abubakar ne saxaaba yi bokk na ci seen i mbir mooy kaanu waqaatina li kitaabillah seen ñu mën a dal seen i frein xam nga ab dañoon frein ak age seen i frein ñoom saxaaba yi mooy téere yàlla lu ñu daw daw daw aw xel boo leen fàttale aay rek o wàcc nañ kon mbokk yi faw nit ñi nattoo ko ci muñ benn bi rek mooy bànneex yi xam ngeen yéen yàlla dañu ne ko laa la mujjub jamono nit ku góorgóor daan siyaaba yi juróom fukki saxaaba xam nga loolu yéeneen lool waaye lu tax su ñëwee ci diinam day laaj muñ loo tax ma ne ko xaabu daal la jafara comme ci gis ñëpp safara xam ngeen ñëpp safara xam naa ko ko dégg def xam nga nu mel affaire bi noonu lay dem est ce que ñun yegg nañ moom déedéet kon bokku duñ ca gaaya loolu suñu bëgg a bàyyi xel su ko rafet jot defe yaa ngi am ci yaaba jëm ci saxaaba da nga koo fekkee yaa ngi nax sa bopp parce que li ngay dund ñu réew bu tëdd nag ci xala saxaaba gis nga ayaamu sabr inna amaamakum ayaamu sabr yéen yàlla seen kanam di si muñe nga fan kul bànneex yi bànneex yi moo tax ku mënta ku mënta bàyyi mooy yàlla doo muñ kat lu tax doo muñ kat mooy mooy yàlla bàyyi ko dafa laaj muñ mooy yàlla bàyyi ko dafa laaj muñ ibn al-qayyim dafay nekk li diggante muñ yi ak différence yi ci am xam nga daal muñ boo xam ne mënoo ci dara yusuf man jàppoon yóbbu ko ci àll ba yeewu ko dóor ko muy bëgg ni ko pëccëg ci biir seen ba muñ la waaye ndax man na ci war bu muy loolu lu ma lu ma lu ma muñ par force moo tax ibn al-qayyim waaw dafay dafay def ay ay ay taxaw seetlu yu am solo ci buntu boobu mu ne moo tax muñ ga Yuusuf muñoon ci digganteem ak ndaw sax moo gën fa yàlla fuuf muñ ga muñoon ba ñu koy sàbbal ca teen ba parce que fii muñ la fee muñ la waaye fii daa muñ ci lu mënul dara fee nag ndaw si daa tëj bunt bi tëj fenêtre yi xallaqati abwa ba karaj karaj xam ngeen tëj tëjal lu télé nii rek karaj benn yoon mu ngi karaj mooy xallaqati bi tashdid tëj tëjal tëjal xaalata hayda la mu fëtteeku ci moom ni ko kaay dañuy jàllamaal yow subhanallah ndaw si nekk jabari buur amul taa woo ko si biir kër xale tëj bunt yi ëllëg lu mën ci am bu yusuf dul mucc yow ndaw si dooroo mucc ndaw si am alal yàlla dénk ko taar mu woo ko si boppam yusuf di jeune ba pare di étranger ci dëkk bi boo nekkee jeune da ngay am bànneex boo nekkee étranger bari woon da nga am fii kenn néew gars yi duñu yëg waaye mu ngi yusuf yooyu yëpp mu boole ko ni ma abdallah maa ngi musulu ci yàlla bi inni axaafu in ataytu rabbi adaaba yawmin adim ay gi dëkk sa kanam maa ngi tiit moom mooy yàlla dajeg moom mu xalaat ah si gis xoolal buñ boobu ci yàlla yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu mu rëy kon mooy yàlla bi dafa laaj muñ ci yàlla yi gën a bari parce que moo ëpp ndax da ngaa am sago pour def moo tax yàlla bokk na ci juróom-ñaari yàlla yi seeral yawmal qiyaama mooy ndaw loo xam ne dañ kaa woo ci njaaloo ci mooy yàlla mu am possibilité def ko ba noppi mu bañ kon mbokk yi faw ñu xam ne muñ nit ki da ci yar boppam jikko jikko comme ni ko liggéey xolam ne jikko jikko dañ ko tas bi fekk jikko la woon amul sabda jikko mooy da ngay dem jikko wa nafsin bakkan bu ne wa ma sawwaaha ak ni ko yàlla moo ñee jubbal jikko waaye nag fa alhamaha dafa defal poos boo xam ne fujuraha ca la saay saay nekk wa taqwaha poos boo xam ne ragal yàlla ca la nekk léegi nag tànn sa bu la neex la qad aflaha man zakkaha bu fekkee yow jub moo la neex nga bàyyi saay saay da ci gën ci bakkan bi tey nag iman ji mooy kenn ku ci nekk ci jub bu ngeen ñëw ci sunu da nga àndaale sëriñ comme xam ngeen loolu lépp ku ne ci ñen da ngay xam sunu da nga àndaale sëriñ yonent yàlla annaasu maajil bi ñu nekkul ci biir sunna wala lislaam ndella la ndella mooy genre or wala lu baax daal waaye xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam ida faquhu kama gëmoon bi ngeen di nekk ay ceeb bu ngeen ñëwee ci lislaam moo lay gën bu dee yéen a ngi jàng yéen a ngi nangoo xam diine gis nga da ngay gis man damay xam jikko boo xam ne nii man nii mu wóor ma ne bii dafa yàgg ci damaa topp kenn ku nekk masal ay at ci sa ginnaaw nga xam balaa ngaa xam sunna gis nga melokaan yii ne ci yow gane ci wala de dafa yàgg ak yow jikko la dañ koo jiwoon fujuraa wa taqwaa léegi nag ñu lay wan ni gars yi naan jikko borom sax loolu dina jëriñ foofu moom olof daal daana la xala ba ci suuf ndax bu fekkoon jikko borom sax wér na kon sunna bi ci nekk naan defaral seen jikko yi innama ba'uthu li utammima karima al axlaq defar jikko yi ma sax a jik léegi nag wa nafsi wa fa alhama qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dakkaaha léegi nit koy def effort nag di dindi di dindi di dindi benn saxaaba yonent bi da koo xoolam yàgg mu ne ko yow ñaari jikkoo gi ci yow yoo xam ne ni mu neexee saa borom yàlla allahu akbar alxilmu lewet ah alxilmu lewet defe naa beneen bi ci des kon am naa ci yaakaar naa su fekkee jiwma ci riwaaye ñaari melokaan ci yow yoo xam ne yàlla da kaa bëgg benn bi mooy lewet benn bi mooy teey amul dal kon nit ki mooy sonn xamal ba moom muñ léeg-léeg ñu def lu nit nga dem bay bëgg a wax sa xel dem ci bashir sabirin muñ kat yi nga daal di muñ waaye wax a wax a wax a wax a wax ba sa xol seen su dul woon a jël am nga temps mooy jëlee tuyaaba kon kay jeex di watal nga baal ko kon mbokk yi ay mbir la yoo xam ne buñ ci bàyyee xel dañuy jugee yàlla ne isbiru muñ leen ci lépp loo dal wa saabiru muñaleen ci suñu diggante yi ñuy dal wa raabitu dañuy mën a def ñuy nekk benn fonkal bul yàlla wattaqu llaha buñ ci tegee ragal yàlla suñu borom yàlla yàlla na yàlla soo defal ñu ko wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi